auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew ci gox yi fasantikoo yi noo ngi leen di nuyu te leen di ziyaara kàddu gi nag di bàyyikoo fii ci bayti fi Cheikhul Xadim yanoo woon liggéey bu rëy bii liggéey woon ko boroomam liggéeyal ko sangam ba yonent bi sallallahu alayhi sallam waaye noo ngi ziyaare bu baax ki fi nekkal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di sëriñ Muhammadul Muntaxaa di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool lool te wéral ko ba ay yéeneem ci liggéeyal maamam Xaadimu Rasuul mu def ci koy njortu ànd ko ak taalibe yëpp noonu lañ koy ñaanale itam borom pàkk bii ñuy àddoo ci biir këram di sëriñ Ahmadul Muxtaar ak mboolem njabooti buntu kër yi sëriñ Mouhamadul Moustapha yëpp ak jawrinam nag sëriñ Cheikh Mbacke Madina ak mboolem njabootu sëriñ Mbacke Madina gi yëpp di ziar bu baax sëriñ Abdourahman mi toog jotaay sëriñ Cheikh Amadou seen sët sëriñ Moustapha Mbacke Mouhamad di ñaanal sëriñ am ni Modou Mbenda sunu borom yàggal ko moom it wéral ko <clears throat> ak njabootu maam Cheikh Ibra gi yëpp ni ñu ko baaxoo defee rek saa buñ demee ba weeru tam xarit wi teru commission culturelle bu Euh, bayti àndandoo ak mboolem commission culturelle yu Daaru Xuddoos yëpp ngir waxtaane bis bu màgg bu rëy bu sell bu nekk sunu kanam mooy bis bi nga xam ne ci la Cheikhul Xadim radiallahu anhu ab liggéeyam mate woon mu dëkkaale si woon ak boroomam te taawam bu baax ba di Cheikh Abdul Moustapha al Karim indi woon ko ci dëkk bu sell bii dañuy fas yéene waxtaan màggal gi sëñ Manoussa njëkk a màggal message ba mu ci joxe woon ak màggal gi nga xam ne moom la mujj a màggal na mu ko organiser woon ne bu ma fi fekkaatee ci organisation boobu yi la koy bàyyi dootu ci soppi dara. màggal gi nag jëlee nañ ci ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Diop Kaolack Baye Maxtaar moomu ci mag ñi mu sëñ Manoussa la bokk mu wax ne màggal gi bi ko Cheikh mënu Al Karim di woote di ci wax. nee na booba ñoom day ay dongay sëñ Modou Moustapha lañu yoo nga xam ne daare jëm wel lañ newoon di fa liggéeyal sëñ Modou Moustapha mu woo leen ci këru bayti gii ñuy waxtaane nii nee na ñu war fee ay néeg ci kër gi nee na bisub gaaw fukki fan ak juróom benn ci weeru tam xarit la ma woo waxtu nee na takkusaani suuf ne ma maxtaar jo demal see wool ma bàyyi ma sàmm demal seetal ma ko boo fekkee nga wool ma ko nee na ma dem këram ñu ne ko daa nekk ci ab tukki ci réew mi nee na ma del si wax ko sëñ Manu Saa nee na mu ne ko toppal ma ko foo ko fekk ci réew ne ko daa koo soxla sëñ Maxtaar nee na wër naa wër nañ sëñ Masàmba ñaari fan fekk ko Luga waxtu kon fukki fan yaak juróom ci weeru tam bi lañ gis sëñ Masàmba nee na mu julli timis ba def ay lawraatam ba noppi na ma àgg suuf nuyu ko ne ko sëñ la soxla nee na nga wuy si ko Touba nee ba ba warukaay yombut nee na ma war watiir ba ñu wut si Touba nee na may dox topp ca nee bi ñu agsi guddi na lool fekk nañ sëñ Moussa Fatou sëñ ma Massamba itam li may doon doon kilifaam ci zahir di bàyyam itam aggul këram wen gi ne woon ci wetu jàkkal ko sëñ Mbàkke Mohamed gii wen gi woon foofu ci wetu jumaa ji nee na foofa la fanaan sëñ Maxtaar nee ma ñëw ci këru bayti gii néeg bi sëñ Moussa fanaan nee na ma sukk ca buntu néeg ba ñemewumaa tëri ñemewumaa àggale guddi gi ca donga ya nee na bi sëñ Moussa yëngoo ci yoroor bi maanaam mooy bi mu ubbee nee na xool ci buntu ci penku bi ndax nee na booba Tuubaa mel ni tey foo xool sa bët jàll mu seen sëñ Maxtaar sëñ Masamba fa mu toog nee ma ne Maxtaar Jóob ñeele buntu jumaa ja ñomu nee na ma ne ko sëñ Masamba dee ñëw bi fekk nga fatu agul këram mu fanaan foofu nee na ma ne ko demal wol ma ko nee na baa koy boo fekk naa fa alhaaji Moustapha Jóob njëkk sëñ Baara Amar ak sëñ ñoom reloo nee na ma ñëw woo sëñ Modou Moustapha ma ñëwoo sëñ ma sàmba na ñu ànd jiitlante ba si ci këru bayti gii nee na Cheikh Moustapha gàttandu ko joxoñ ko lal bi bëgg mu toog ci sëñ Masamba teg loxoom ci lal bi toog fi suuf Cheikh Moustapha toog fi wetam jàmmanteeg moom ab diir génne aw kayit ci poosam jox ko neen na sëñ sàmba jàng ko ba mu àgg mu ne teg ab diir waxut Cheikh ko xanaa xam nga woote bi de mu ne ko am ah, Mbàkke sama xel daf koo faayoon rek ne ko mu ne ko kayit wi de ba ko borom Tuubaa bindee ba mu àgg yow mii la woowoon woo ma jox la ko yow bàyyi ma sàmba nga jàng mu àgg delloo ko ko mu jox ma ko ma jàng ma ak di ko delloo mu ne mënu soit denc ko ba waxtu woo jot xanaa waxtu woo de agsi na nee ma ne ko waaw Mbàkke mu ne ma xanaa ci at mii la ma waxoon de nee na ma ne ko waaw mu ne ma ashrira muharram de xanaa ngoon la sëñ Maxtaar Jóob neen ki a dégg ashrira muharram mu ne ko doxal jiitu ma ci jumaa ji maa ngi ñëw fekkoon na sëñ Moussa waxoon ne képp ku yaakaar sëñ Tuubaa soxla naa la ci jumaa ji nee na seex mu Cheikh Moussa génn ci këru bayti gii di dox wuti jumaa ja nee na ñoom donga yi jàppoo seeni loxo nee na ku ñu wax Baye Cheikh Diop moo nekk seen général ñoom donga yi jam weli yooyee moo leen jiite nee na Cheikh Moustapha di dox ci digg bi ñu sikkar sikkar bu di boobu yi xam ne mag ñi ba nëgë ni moom dañ ko yëkkati ba taayif rek fan ni bërki dem rek maa ngi dégg ma am gone yu ko fa yëkkati waaye bi ñu agsee nee na fii sooroot mag bi nekk tey fi la Cheikh Moustapha yéeg ànd ak mbooloo mi waaye nee na boobu ñoo xam ne ab sooroot dana fi nekk garabu loora nee na boobu moo fi sax nee na sëñ Moustapha wàcc daal di ànd bàyyi ma sàmba sëñ ma sàmba séen ko ñu waaxu daje ñoom ñaar ñu indi ñaari sées mu Moustapha joxoñ ko benn bi bëgg bàyyi ma bàyyi ma toog ci sëñ ma sàmba teg ci loxoom toog fi suuf mu Moustapha toog tiim ñaari sées yëpp ne ana Ibrahima Sare mu ne ko maa ngi nii mu ne ko yéegal ci kaw bank bee di jot su ma waxee daal ne ana ndëri mu ne ko maa ngi nii bàyyi ndëri moo daan wër naan ciment ba tooy na ba ñu tabax jumaa ji ci jamono sëñ Moustapha ba ci sëñ Fall mu ne ko yéegal ci beneen bank bee di wax su ma waxee Ibrahima Sare wax waaye sëñ Maxtaar wax na ne keroog ñeenti xibla yi bu sëñ Modou waxee ba ñoom ñaar ñoon jot li wet gu ne la fay jottaliwaat ndigal li mat na fukki nit Cheikh Moussa génne kayit bi bindoon ndigalul màggal gi nee na ko ci ñeenti xibla yi ko dugal ko ci poosam ne Ibrahima Sere nuyul ma bindee su ngeen gisee ma woote woote bii kayit wi ma wane léegi man Modou Moussa lem ko dugalaat ko ci sama poos sëñ Touba ko bindoon seerloon ko bàyyi ma sàmba mii moo tax ma woolu ko mu ñëw waaye di seer a ko war a fekk ndaw li Louga la ko fekk daal di Ibrahima Sere nuyul ma bindee fi daal ko borom Tuubaa moo ne ma saa jamono bi tolloo fii na nga ma dajaleel saa mbooloo wax leen ni su bis bii jage seetee fu nekk ci àddina na fanaan si Touba soxla su jar bañ fanaan si Touba yàlla def ko ci benn soxla ci guddi googu gi Ibrahima Sere neel bindee fi borom Tuubaa moo ne ma woon saa bis bii dikkatee rasul rabbul alamina ak ahlu badrin ak malaaykatul muxarrabiina yëpp fii la ñuy bokk fanaan fi Touba. ku ñu fi bokkal fanaan ak seet nga wecc ci bàkkaar waaye neen ku ñu fi bokkal fanaan ak jàng alxuraan ak xasida ak salaatu bi ak bernde boobaa ngay doog a set ci wecc ci ci bàkkaar waaye fanaan lu neex mën bëgg set ci bàkkaar Ibrahima Sare neel bindeef yi kuy ñëw na dugg ci saxaar gi te tontu ko maanaam mooy joxe paas kon bëgguloon kuy màggal si fi nga war a sete nga fi ñëw di fi taqe di buurle la gone yi daan def bu njëkk Ibrahima Sare neel bindeef yi képp kuy màggal si te romb ku bëggoon a màggal si te amut paas la mu defoon ci jibaam mu poosam maanaam muy addi ji moo doon a siyaare na ko jox jëmm joojee ma bu mu ko ñëw màggal ñëw Tuuba soxlawuñu alal yi ci guddi gi róoyi la ñuy ramm maam Maxtaar day message bii mooy bi mu njëkk a wàcce te noonu la ko waxe noonu it la ko mag ñooñee bindee woon kon loola lu am am solo la mu teg ci na ba mu noppee nag ci la digle nag ñu wàcce ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett wut ñeent ñu mokkal alxuraan ku ne toog ci benn koñ ci rawdatu bi ku ne jàng sa kaamilu bopp wutaat fukk ak ñaar ci li war mihraab bi wutaat yenn fukk ak ñaar ci biir jumaa ji digle nag jàng jës boobu mooy ba mu xaddimaat ak miimiya ñay des yor kur def salaatu ala nabi kon noonee la taxawal woon màggal gi joxe message boobu kon loolu mooy màggal gi sëñ Moodu njëkk a màggal gi mujj a màggal nag nga dëkkaale ak boromam muy màggalu 1944 nga xam ne màggalu 1945 fekku ko fi loolee da ko defoon li ñuy wax ay commission yoon wi ñëpp maase ci liggéey ku ci dut maam Cheikh Rahma Fall nga xam ne ak sëñ Issa Diène képp ko nga xam ne daal jiitu woon nga lu jiitu woon 43 màggal googee liggéey nga ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde ma taawam ba nag moo xalaat doxalin woowee dem waxtaan ci ak way juróom sëñ mënu Moussa Al Karim Cheikh rafet lu ko sëñ Cheikh gaaral ko ko teg ko ci loxoom ndax sëñ Moussa moo jiite murit gi te mooy xalifa sëriñ Cheikh nag loolee chronique attributive des personnalités devant diriger le pèlerinage annuel de Touba loolu nag mooy toftale kilifa yi nga xam ne maanaam ñooy saytu bis bu màgg bii di yoonu murid bi maanaam mooy li nga xam ne moo gën a màgg gën a mag wala bokk na bokkoon ci li gën a màgg gën a mag ci yoonu murid bi nga xam ne mooy tax nit ñi di jóg di fa dem pèlerinage nag day firi aj aj la ko lañ koy firee waaye li sëñ Cheikh jublu woon moom mooy màggalu Touba gii ñu naan ko màggalu Daaru si di bisu sëñ Touba loolu nag la Serigne Cheikh wax ne ñi ko war a organiser nii lañu ñu war a mel loola nag yow jàngat bi nga ci war a def gannaaw boo dégloo wax ji ba noppi mooy nga xam ne kon tey jii gannaaw mbind du raaf te ci démb lañuy sukkandiku ngir doxal tey nga gis ne kon Serigne Cheikh la na nasoon mooy loo nga xam ne yoonu murid wépp la ko nasaloon muy patrimoine yoon wi la nii lañu koy jiitee nii la ñu koy doxalee nii la ñu koy gérer lenn lu ci nekk lu ne lenn lu ci nekk ña nañu koy yore ak ka koy yore ak fa mu koy yore ak na ma koy yore ak ña koy yoral mu def ko nag ay ay bànqaas maanaam mu séddale ko ay commission mu indi nag bànqaas bi ci gën a mag da ko def ay kër karaan mu def président général maanaam ki jiite lépp màggal gi di Cheikh Amadou Moustapha Mbacke mooy ki nga xam ne moom la ñuy daw di ko wuti moo nekk ca bopp ba moom la ñëpp di déglu moom la ñëpp di topp muy Cheikh Amadou Moustapha Mbacke chef spirituel euh, religion de la confrérie de Mouride et fondateur responsable moral des pèlerinages nga xam ne dafa wax ne Cheikh Amadou Moustapha moo wane yoon wi moo wane ne intérêt mouride yi fii la ne matérialiser ko indi fi sëriñ bu mag bi tiital foncé suuf si dëkk fi dëkkal si fi njaboot gi daal ne sunu anala sunu alal a ngi nii kon nañu ko yore waaye nag loolu moom la ngay xam ak la nga cay déggee du Cheikh Ahmadou Moustapha du tur wi rek doomi sëñ Touba ak soxna Aminata Lo déedéet mooy képp ku fi nekkal sëñ Touba place booba yaa koy tooge Cheikh Moustapha mooma la ñuy wax ka topp ci moom di premier vice président alxaaji Mouhamadul Fadil Mbacke di rakkam ji nga xam ne moo sës ci moom rëkk moom lañ ci sësale woon nga xam ne moo topp ci Cheikh Amadul Moustapha ñu toftal ci sëñ Fallou sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi ak sëriñ Abdoul Ahad Mbacke ak sëriñ Saalihu Mbacke ak sëriñ bu Mbacke waaye nag bañ jógee ci loolu nag. ñu def Cheikh Mamadou Bachir Mbacké directeur général de la tribune d'honneur officielle nga xam ne maanaa tribune bu mag bi nga xam ne kilifa yëpp fa la ñuy nekk muy lislaam yi yooyu yoon wi ak kilifay aada yi Serigne Bachir Mbacké waju Serigne Mountakha mi ngi ci jal bi moo ko yore di ko saytu moo yore tribune booba yore ña ko yore moo fay dogal moo yore lépp directeur général nag directeur général honoraire nga xam ne moo topp ci Cheikh Abdoul Bachir ci directeur gi comme ni Cheikh Amadou Fadal toppe ci Cheikh Amadou Moustapha Mbacke ci président ba kooka nag directeur général adjoint honoraire bi mooy alxaaji Mamoun Mbacke moom maam Cheikh Anta maanaam mooy kaca topp maanaam moom lañ toftal ci Cheikh Amadou Bachir ak kan seriñ Modou Awa Balla Mbacke maam Thierno ak sëñ Cheikh Awa Balla ak sëñ Modou May moom ma sàmba mu am nag directeur général actif. mooy ki nga xam ne mooy dox yëf moo koy waaxu ngir li ñu war a saytu ci màggal gi ngir ñoŋal ko baaxal ko toppatoo ko ba bu nit ñi teewee Cheikh Amadou Moustapha di président général Cheikh Amadou Fadal di vice président Cheikh Amadou Bachir di directeur général directeur général active pèlerinage bi nag mooy ki koy dox di ko wax di ko lijjanti mooy taawam bu baax ba Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma nga xam ne poste yi kon moo yi jiitu nekk ci kaw waaye kan moo toppoon ci Serigne Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma rakkam ja Serigne Mbacke Madina ku ca toppaat Serigne Mbacke Madina Serigne Modou Baara Mbacke ak sëñ Abdoul Aziz Mbacke ak sëñ Abdoul Karim Mbacke ak Serigne Sadibou Diop bu Ngumba Ngewal directeur général nag des services des réceptions moo nekkoon Serigne Modou Xabbaan Mbacke Serigne Takko Mbacke Serigne Modou Farmata Mbacke Serigne Ibra Mbacke Ndar Serigne Cheikh Atta Mbacke responsable de mausolée ki yoroon barabu Serigne Touba bi mooy Serigne Mor Soxna Diop dirigeant de lecture coranique nga xam ne bu doon jamono ji ñu yore commission culturelle yi toppatoo njàng alxuraan ci bis bi di bind exposition yi moo nekkoon Serigne Mbacke Kandi Bousso ñu ca toftaloon adjoint yi moo nekkoon Serigne Modou Bousso ak Serigne Madiambou Silla ak Serigne Modou Makhtar Alelo dirigeant de lecture de xasaayit ki yoroon njàngum xasida moo nekkoon Serigne Mbacke Diouf sëriñ Mouhamadou ture sëriñ Aliou Sey ak sëriñ Aliou Ñaan comité de restauration ñu yoroon wàllu waañ wa ak xeet yooyu moo nekkoon sëriñ ñoom reloo sëñ Mat Daam Diop sëriñ Fàllu Diop Mor Farmata standing islamique ba bu doon tey ñiy leeral nit ñi exposition bi ak di leen waxal maanaam discours sëñ Moussa yi ñu mu daan jàllale ña yore loola mooy sëñ Mat Dem bu njaareem sëñ Modou Boussa taaw sëñ Mbàkke Boussa ak sëriñ Moulay Boussa ëttu diiwaan muy ëttu sëñ Moussa itam kooku jiite woon nga xam ne moo nekkoon président ARN ba mooy sëñ Modou Moussa Fall taawu maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Sarr doomi Serigne sëñ Bay Falloo Ndiaye moom sëñ Daaru ak Serigne di Jaal Seck ARN sëñ Modou Moussa Mbacke ba tey Serigne ma sorong sorong Serigne Bay di ba Serigne Saliou Fall Mbaaxaan Diop Cheikh Yaaba Diop Sidi Ndiaye Albouri Elimenan Fall sëñ Cheikh Fatako Diop. ñooñu itam ba tey bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo yoroon loolu ak sëriñ Maxtaar Alelo ak sëriñ Yoro Silla ak sëriñ Aliou Aydara commissaire arène sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke moo nekkoon sëriñ Baydi Ba addu seen sëriñ Cheikh Fatakko Diop micro centralu màggal googa 44 sëriñ Mor Joojo Fall moo ko yoroon directeur mouvement ba moo nekkoon sëñ Aliou Mbacke sëriñ Cheikh Oumy Mbacke moom Cheikh Abdoul Fadil directeur réception personnalité moo nekkoon sëñ Abdou Niane sëñ Chérif Lo sëriñ Taïba Touré màggalu 44 gi sëñ Mountakha mujj a màggal organisation la ñu ko doxale woon nga xam ne ñëpp yoon wi liggéey nañ ci yor ko Cheikh Moustapha wax ne bu fi màggal gi fekkaatee noonu yi laa koy bàyyi mu doxee noonu far yàlla dogal fekkaatu ko fi kon loolu da nga ci dégg ne lii Serigne Cheikh Nassone patrimoine yoon wi lu am solo la alhaaji baara bi mu doonee xalifa bi mu ko gisee dafa wax ne Serigne Cheikh de lii muñu andiloon du woon sax ak màggal rek buñ doxale woon yoonu murid wi ku fi doon xalifa Serigne Touba doxale ko noonu ku ne gis ci boppam dangay ngay noppalu noppale noppale Cheikh Moustapha mi dafa amoon ndigal lu wér ci Cheikhul Khadim ay ndigal yi mu ko batale woon waaye ki taxaw taxawaay bii nag dana yellu ñu wax ci moom mooy kan ndax Cheikh Moustapha al Karim damay faral di wax ne ngir nga waxtaan ci soo laajoon sa bopp ñetti laaj yi te tontu ko rek ci lu mat da mën a xam tuuti ci kan mooy sëñ Moustapha ñetti laaj yi mooy ban bi ci njëkk mooy tubaab bii yoroon sëñ Tuubaa lépp fanweeri at sëñ bi nekk ci loxoom tubaab bi yor ko fu leen neex jëme ko keroog bi mu dëkkaalee ak borom fekkoon tubaab bi mënoon na cee jot ba yóbbu ko France denc fa sëñ tubaa ndax tubaa dana mel nii mu mel déedéet ndax wëlëru tubaa ak nii tubaa mel nekk fi sëñ tubaa nekk la waaye feneen suñ tubaa nekkoon tubaa mooy mel noonu ñaareelu laaj bi gannaaw sëñ tubaa bu fekkoonte ne amul woon ko taxaw nose yoon wi ba mu murit gépp àndandoo ci benn waaw di fabandoo di tegandoo boobu matub daarul moxti amut boobu daaru salaam amut boobu daaru xuddoos amut murit yépp ñoo àndandoo di wéyandoo su ko fi war a nekk sëñ Tuubaa lu wax ñu def ko te loolu yi léegi sëñ Moussa la ndax murit gi dana mel nii mu mel déedéet loolu itam kon ba tey du ni mel jumaa ji bu ñu négoon ba ay 1900 nangam wala atum 2000 ñuy doog a seet fu ñuy teg jumaa yu Tuubaa ji ndax dëkk bi dana mel nii mu mel déedéet Cheikh Abdoulaye sëñ Abdoulaye daan wax ne waxtaane Cheikh Moussa doy na ci nee na moom sëñ Moussa mi sëñ yar sëñ Fallou sëñ Basiiru sëñ Baara ak moom sëñ Abdou Lahad mi sëñ Moussa tàmbalee yar ba ci sëñ Mourtala mu ne soo xoolee mënoo xàmme yarub sëñ Touba ak yarub sëñ Moussa daal di cee teg ne waaye lépp na di sëñ mu ne kon waxtaanoon kon loolu doyoon na ci sëkk waaye nag Cheikh Ibrahima almashaxi yi dafa bind ci sëñ ci mag ñëpp waaye bind nag dinu jàngal sëñ Manu Sawa ngir nga waxtaan ci nee na boo sukkandikoo ci lii dana dooy sëkk ñu dégg la ngir ki ngay bëgg a jàngale mooy kan bi sëñ Touba nelawee dëkkaale ak boroomam feesoon dell jamono nit ñi jaaxle almasi dafa bind ñu jàngal sëñ Moussa daal di ne laxad kaana rawdul ilmi an yatahajama wa kaada binaaul majdi an yatahaddama mu ne sardeeb xam-xam xaw naa dammuton boobu kon mu mel ne mbopp tabaxub tedd nga xaw naa mab maanaam bi sëñ tubaa nelawee dëkkaale ak boroomam nee na xam bu fekkonte ne ab jardin la nee na dammutoon na boobu kon mu mel ne mbopp kenn xamatu ko nee nay tedd nga ba doon la ab tabax la mab bu na ba boo ko xoolee doo mën a xam ne fii kat ab tabaxa a ne woon ñu ne ko lu tax loolu am mu ne isxaarubat shamsul huda wa takawarat wa laylul hawa bin naasi aqbala muslima mu ne jantum jub bañ xamoon kat moo suux dëkkaale ak boroomam nee na jantum njub ba ñu miinoon mu fenkoon di sëñ tiim ñëpp leeral fépp moo sox suux dëkkaaliwaat ak boroomam nee na bi loolu amee nag nee na nag wa zilzilan naasi silzalan shadidan nee na wa silsila silsaalan shadidan jamia man alal ardi fatadarrama nee na nag jantum njub boobu nag nee nag ba loolu amee nag nee na nit ñi nag yëngutu yëngutu bu tar boo nga xam ne nee na nag bi nit ñi yëngutoo bu tar nag nee na nag lëndëm gu ñuul kukk nag dëgmal siwaat nit ñi aku njàqare ak wañse guñ xamut fu muy yem nee na ci jamono ci jamonoy tiit googi ci jamono lëndëm googi njub gi dem njàqare daal di fenkaat tar lool ci jamonoy jaaxle googu nag nee na ci jamonoy lëndam googu nag xam ne njub gi dem na xam-xam dem nit ñi jaaxle amatuñu yaakaar nee na jamono jooju nag ata Mustafa badrul buduri mujaddida wa fajjirul huda min jaanibayhi tabassama nee na jamono jooju nag la sëñ Moustapha nag ne tëll nag ñëw doon weeru weer yi beesalaat li nga xam ne lépp Seexul Xadiim bàyyi woon na ko fi nee na fajaru njub gi nag daal di ñëw fekk ci wet yi yëpp ñu ne ko waaw sëñ mënu Moussa moo miy ñëw mel noonu yi mooy kan ba tey boo ñu gënee loolu li ñu ngi jël almachanr yu tegaat ca ne Cheikh Moustapha mu ngeen di laajkat xadiimu xadiimil Moustapha wabnihi lesi bihi xarraayinal kulli lama taqaddama nee na Cheikh Moustapha moom yi ngeen di laaj ba koo xam nee na mooy liggéeykatub ki liggéeyal yonent sallallahu alayhi wasallam maanaam Cheikhul mi liggéeyal yonent sallallahu alayhi wasallam Cheikh Moustapha mi ngeen di laaj mooy ka ko liggéeyal tey nee sëñ Tuubaa mooy baayam te nee na mooy doomam ji nga xam ne xolum ñëpp ci moom Cheikh Moustapha la sedde kañ la xolum ñëpp sedde ci moom bi nga xamee ne jiite na mbooloo mi tooge ci lal ba wóotu Cheikhul Khadim tooge ci taayib sëñ Touba di xalifa la xolum ñëpp sedd ci moom mu teg ci ne sama liptina sama liptina il majdi këhlan wa yaafian fa arba wa azra billasi xabluhu sama nee na tedd nga bu doon ne ab tabax la moom Cheikh Moustapha ba mu nekkee tuur tànk ak maanaam booba la ko booba la ko raw moo tax mu ne tedd nga bu doon ne ab tabax la nee na Cheikh Moustapha ba nga nekkee tu tànk ak ba mu nekkee mag kowee na tedd nga fuuf raw ñëpp nag gàcceel ñëpp ci jikko yu tedd yu daje ci moom ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon te kowe Cheikh Moustapha gàcceel na leen ci lim am moom ci ay tedd nga ak jikko yu rafet tax mu ne kon fa akrim bihi min kaamilin najli kaamilin wa min aalimin xat kaana ala wa alama nee na yéemal tedd ngay Cheikh Abdoul Moustapha te ko muy ku mat sëkk di doomi ku mat muy Cheikh Ahmadou Bamba muy sëñ Moussa moom yi nee na doomi ku mat la di doomi ku tedd di Cheikh Ahmadou Bamba mooy doomam nee na tukkee ci boroom xam-xam boo nga xam ne kowe na te xam lool mu tegaat ci ne sara sikruhu fi naasi charxan wa maghriban wa an jada lama an agaara wa atahama nee na moom Cheikh Ahmadou Moussa moom yi de aw turam tasaaroo na ci fépp penku ak sow ak najju ak tuxam ñëpp xam nañu ko Cheikh Ahmadou Moustapha mu tegal ci ne fa minhu saxaara badru xusnan wa rifaatan wa rawdu rabii bahjatin wa tabassama nee na Cheikh Moustapha day weer bi li muy rafet rafet li muy kowe kowe nee na li muy leer leer nee na leeraay ba ak rafetaay ba ak kowe ga lépp mi ngi ko àbbee ci sëñ Munu weer bi leeraay boobu mu leer ak rafetaay boobu yi mu wéyal ba tey ne Cheikh Moustapha fa minhu fa minhu staxaaral badru xusnan wa rifaatan wa rawdu rabii tabassama nee na weer wi li muy rafet rafet li muy kowe kowe li muy leer leer nee na leeraay ba ak rafetaay ba ak kowe ga lépp mi ngi ko àbbee ci Cheikh Amadou Moustapha nee na sardeeb loolu li itam na muy rafete boo ci duggee ba gis tóor tóor yu naat ya lool nee na gis tóor naat lool féex lool nee na loolu lépp sardeeb mi ko àbbee ci Cheikh Amadou Moustapha la ko àbbee tax mu ne mataa talxuhu talxal makaarimu kulluhum wa saadafat minhu lil makaarimi saa boo dajeeg Seex Moodu Moustapha rek na nga xam ne daje nga ak mbooleem xeeti tedd nga yi ndax mboolem tedd nga yëpp mu ngi daje ci sëñ Moodu Moustapha kon maanaam saa yoo jógee ne da ngay wuti tedd nga nee na nga jóg dajeeg sëñ Moodu Moustapha Cheikh Al Machar na man ngaa wàññi ko te nee na man ngaa waat ne fiiroo nga ak mbooleem tedd ngay sang yëpp ndax daje na ci sëñ Moodu Moustapha mu teg ci ne ala annahu fil ba'si jala day xama nee na day boo ko doon natt moom sëñ Moodu Moustapha ci wàllu ñeme akuk njàmbaar nee na Cheikh Moussa gàcceel na gaynde moom maanaa gaynde kenn du ko tëkkalik sëñ Moussa li muy ama fit ak li muy jàmbaare jàmbaare nee boo ko nattee sëñ Moussa Cheikh Moussa da koy gàcceel kon loolu almasi def ko bind doon ñu jàngal sëñ Moussa mooy kan nga xam ne kon moom lii rek doyoon na sëkk ci kon bu ñu ko doon jàngale kon xam naa dañuy wàcce foofu kàddu gi di sant ñëpp di jéggulu ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa